Abdoulaye Diène moo la woon ginnaaw tent bopp bi doomu Kajoor nga jàkkaar lool combat spécial baa ngi noonu Adama ndaysaan journée Ama Dia production ndaysaan le 9 3 troisième mois 2022 ndaysaan mooy le 9 mars 2022 arbitre bi mu ngi waaj a siffler ndaysaan doomu Kajoor Njaay Diène doomu Kajoor Ndiaye Diène doomu Kajoor Ndiaye Diène am na lu muy bind arbitre bi sifflé na mbokk yi doomu Kajoor Ndiaye Diène doomu Kajoor Ndiaye Diène Ousseyn doomu Kajoor moo la woon ginnaaw Ndiaye Diène nga jàkkaarloo Ndiaye Diène moo doomu Kajoor nga jàkkaarloo mbokk yi ñu xale yaa ngi noonu ci digg géew bi waaye lewaatoo bi soriyaantoo na kii di Ndiaye Diène dafa am benn morceau bu mu teg seen diggante moom la bëgg doomu Kajoor jàll ko wala boo fekk si ko moo tax gisoo lewaatoo bi ni mu soriantoo maa ngi nuyu di léegi nee na kii di Ndiaye Diène moo njëkk a bëri fii ci arène nationale bi. moo ko inauguré. waaw moo ko inauguré ci lutte avec frappe. taarix da koy fàttali histoire da xoola boo xoolal moo ngi dem ci morceau ba. daa bëgg xale fekk si ko. lu mu fi amoon ndam wala fi defet. Ndiaye Diène ndam la fi jëlee ndam la fi ah, du jeex de waaye bu doon moo daanu ñu ne moo fi njëkk a daanu ci arène nationale mais moo fi njëkk a am ndam ci arène nationale moo taxit arbitre baa leen di wax ñoom Sunjata Pape Sène arbitre bi sifflé waat na Ndiaye Diène doomu Kajoor doomu Kajoor dindi na xoolal moo ngi bëgg a dindi ba dindi na ko sànni ko ndox fekk si ko li waatoo bi bar na eh <laughs> Ndiaye Diène mi saf na de Ndiaye Diène doomu Kajoor Ndiaye jël doomu gardam Ndiaye jël ana gardam ana gardam da jël doomu maay moom Ousseyn dinaa xeex ah waaw xeex mënu cee ñaar maay moom du ma jàppante xeex bi arrangement am la parce que Ndiaye jël amul da daan da koy daan ah, na ko eh, Kajoor ak Bawol Ousseyn xale dafa nekk ci làmb Kajoor ak Bawol Ousseyn xale eh, doomu Kajoor daal yaay jën daal yoo jël ko da war a bàyyi di favoriser gàllaaj tey entraîné Ouzin waxati ko da war a bàyyi favoriser gàllaaj bi Ouzin waxati ko xoolal moo ngay tekki sa ngoore Ouzin waxati ko non nañu bàyyi gàllaaj yi tey entraîné wax gàllaaj yi moment bi boo jàppee ndigali boo ci fekk ay sagar yu bari sëñ Fall dafa am lu ma woon bu la nee na bu boo deewee ñu oo sa ndigg fekkuñ fa lu mat juróomi kilo deewoo da ngaa xaw ok bàyyi xale yi gënaa gàllaaj yi ñu fa mënoo déedéet nañ bàyyi li ñu def te liggéey noota <laughs> noota noota Ousseyn noota ndeysaan doomu Kajoor a ngi noonu di ñëw Adama doomu Kajoor a ngi noonu di ñëw noota noota noota kon gannaaw la dëgër de ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax ndax day jàpp ci combat yi cinq heures de yeew ñëw ñu téye ñu géej ñu liggéey la ba ñu bëgg a dee billaahi bëre bi façon bi nga bëree ndax dañu gis nga xeex daw ñu yaakaar xeex bi daf la arrangé damay mbabat même bu dul lamb bi damay mbabat fan yëpp maa ngi ci àll bi bii mooy sa ñaata combat mooy sama neuvième combat ñaata victoire huit victoire waaw man kii moom daan Mandela Mandela bu Mor waaye man gin bu yoofu ñëpp ku ñëw baax na waaw moom xam na loolu sax laa laa na ñëw rek bu ñëwee dina xam ndax dix na wala diisul waaw